way bobu mo ci gëna neex lutax ngir way bobu dafa riche musique bi dafa riche dafa international mbalax la ga waye tuba mën na ko déglu mën na ko fecc njaago mën na ko déglu mën na ko fecc wolof couleur nga jël ivoirien son bi arab na mën na ko déglu mu neex ko cheikh ñaan guitariste bi nga xamné mali la dëkk ñuy wax ne moo war remplacer jimi mbay dëpp ci tëgg ngéwal mais way bi li tax mu gën a neex mooy Wally Seck dafa aaral dafa waane dafa way ak baatam bu sew bi xam nga Youssou Ndour génne na fi album ma ne bi ma ci gën a neex mooy lii neex neex na parce que lii neex neex na Youssou Ndour daf ci dugal ay aaral Wally Seck bii dugal na ci aaral yi mu ci dugal mooy si bii di bi daara xaw ma si nu mu koy waxee mais surtout baat bi baat bi dafa neex mais musique bi reprise bi reprise discrète xam nga man mbalax dama naan reprise neexuma ci mais bii reprise bi dafay ñëw doo ko sax sentir changement de rythme bi vraiment Cheikh Niane bi ak guitare bi ak mbalax bi bravo Ramdan Ramdan musique bi dafa set wicc waaw Prince Faramaren a encore pare lyrics bi mi ngi woy xale yi nga xam ne dañu nekk ci mbedd bi sedd bi jàpp leen ñu def tànku neen kon way bi dafa am sens way bi du sàmbay mbayaan way bi ci topp bi ma gën a neex mooy wayal lii am da ngay sentir clavier bi nu mu duggee mbaat Wally Seck neex na mais surtout way bi li ko neexal mooy reprise bi ma nee naa la bëgguma reprise de waaye bii reprise discrète la encore reprise bi doo ko sax sentir da ngay jékki rek dégg violon yi ndeysaan mu mel ne musique indu ah bu leen fàtte nag coon sekk mooy bàyyam te coon sec nous xam nañ ne dafa am influence endo donc musique arabe ndax ñëpp xam nañ ne arabe yi dañu bëgg violon bu leen fàtte ni Youssou Ndour ndeysaan génnoon na fi ben album ndeysaan bu amoon Grammy lu parce que sonorité arabe la waaw kon nag Wally Seck foofu faire xaw a dugg bu wax symphonie lu tax mu tuddee album bi symphonie kon morceau bi bokk na ci lu tax ñu tuddee album bi symphonie ndax album bi fukki morso ak ñaar la man papis ba wali sek di def de euh, d'écoute manam ba mu woowee taskatu xibaari ak ay fanzam fele ci ben hôtel ngir ñu deglu way bi papis def bañu ñu wayal li dafa ne ah bi moy xorom ci kon ñu bëre dañ yaakaar ne way bobu mo ci dakk mais man yobante mom ci mom ci dakkal ok ma ngi bëgg am problème nak ci album wali sek bi ndax instant yi bo lo sama casque la yor y son mais dama ne a sax numéro 3 kii l'a fait def taxi mais légui damay deglu Gune Walié way ah bobu lay def numéro 3 ndax bobu vraiment mangi dogu comprendre nak lutax sec. def séance d'écoute bi mang ko gis mu yengal eh koy comprendre pour man dama ne ah xeyna bobu da ngay waaw mais légui la koy ni mais vraiment c'est le numéro 3 parce que la symphonie bi mo neex mélodie bi dafa neex la sec dafa neex aral bi ak lan euh, clavier bi nu vraiment c'est très joli kon bobu lay def <laughs> numéro 3 numéro 4 c'est le taxi la xaaral ma taxi bi. fi mu nekk dama parce que instant yi damay déglu di def commentaire à chaud taxi bi dama numéro 3 après mané y non non numéro 4 mais je y def numéro 4 mais vraiment way bi neex guitare bi nu muy ñëwé est-ce que Cheikh Niane la vraiment li muy teug mi ngi teug ngeewal ba paré ànd ak guitare bi dafa ànd ak clavier bi mélanger ak mom ak vent yi nekk ci biir way bi reprise bi man nee naa bëgguma reprise encore une fois mais encore bi bi tamit reprise bi doo ko sax sentir da nga jëk jëk rek mu ànd ak musique bi ànd ak benn flow vraiment wali sek ah li ma jot a dégg gum neex na trop vraiment ba paré bat bi neex xarral bi baat bu sew bi waane bi comme ndeysaan Youssou Ndour ak papam Youssou Ndour lu muy def ñun lii la ñu xaar ci Wally Seck dafa am style boppam musique bi boo ko déggee Wally rek mooy tëggee ni Thione Seck mënu li Wally Seck di def papa Thione Seck ko Wally ci boppam wax na ko nee na sama papa am na lu mu mëne man it am naa lu mu mëne Wally dafa am stylam Pape Diouf am stylam ku nekk am stylam mais vraiment bii moom neex na trop moom laa dóor numéro 4 ba pare li tax mu gën a neex mooy chanson d'amour la ndeysaan jabaram ji la la ko am soxna ay ah, dara kenn dootu ko présenté fan Wally Seck genre way yi moo leen di rey parce que bu demee penc ma wala mu dem concert di ko way da ngay gis ni ñuy ànd ak moom di ko di ko way yii genre yi mooy genre balade mais vraiment c'est c'est c'est super te li tax mu doy waar mooy maa ngi koy doog a déglu nii te ñëpp xam nañ ne way boo koy doog a déglu dina neex mais après lay gën a neex Youssou Ndour noonu lañ ko daan tooñee day génne album ñu naan ah neex na neexul après da koy yóbbu la Lac de Guiers la ñuy wax la koy yóbbu foofu daal di ko sóob bu ko sóobee nga toogaat une semaine déglu ko nga ne laa ilaha illallah dal na ma kasetu Youssou Ndour bii génn dama ne woon bii rek moo ma ci neex dara du ko dàq moo ma ci neexoon mais dem naa ba ci biir gis yeneen soo yoo xam ne dafa ma neex trop waaw kon numéro senk ma jox ko symphonie symphonie bu ma neexoon sax mën naa ko def numéro 2 wala numéro 3 parce que man vraiment fi mu nekk nii damay déglu à chaud mais bi way mom musique bi dafa neex mélo bi dafa neex gaay teug nañu ngéwal vraiment Ramdan seen musique set na neex na mais nak du len ko neub yenen son yi mom dama ci gis ay sambay mbaya nak affaire yoyu yoyu mom il faut que ma dégluwaat ko mais seul le travail pay waaw te te way yi boo leen xam neexay bi il faut ngeen ut casque bu baax ndax man daf ma dal rekenté bu pap Diouf bi na ma ne woon neex na rek mais temps yi dama doon organiser ben événement